bismillah bismillahi rahmaani rahim ni ki mbir yi nga xam ne moo feeñ ci dogalub yàlla muy jàngoro jooju feeñ foofee ca Chine te léegi mi ngi tàmbalee tasaaroo ci gox yu bare bari ci àdduna bi bokk taalibe ñu bañ di fàtte ne sëñ bi mas naa wax ci wakaana xaqan ne fekk da koo jàngulu ñetti yoon ñu ko jàngi ñetti yoon nag mu ne bari na ay wu ngeen di dégg ci àdduna te jàng gu ñu xasida gi moo tax ak siwul fii xama nee na ne kon jànguñu jàng wakaana xaqan moo tax bari na ayu dégg ci àdduna te ak fii mel ne ne kon nag barab bu ne mën nañ faa bari la jàng wakkaana xaqan ndax yàlla def jàngoro jooju mbaa jeneen bañ faa aksi ba tey xisnul abraar nee nañu bokk na ci kaaraange yu mag yee mag nga xam ne ku ko jàng rek bis ba nga ko jàngee moom bu asamaan ak suuf doon taqaloo itam yàlla utal la ci barab boo làqu bu mucc kon mays nay bari la jëfandikoo pàgguteef yooyu di ci fasaale bokki taalibe ak fu ñu mën di nekk rek mucc ak jàmm wa sallallahu wa sallama wa baraka ala muhammadin wa alihi wa sahbihi wa xadimihi bi ñuy wax nag yi nga xam ne manes na koy fàggandikoo ci xeeti tawat yooyu di ama ak wàlle dañu cee tuddaale woon allahu xayyun samadun wa baaxi wax ne sëriñ baara mbàkki moom sëñ mag bi moo ko def gannaaw bi nag nu xamal nu bu wér ne defu ko te xam nañu ka ko def kon nag lan daloon ca asmaaullahi husna yooyu ba tey moonu dalaatoon ci loolu ñu jàpp ne kilifa moo ko def teewul nag sëñ bi nee woon may naa leen digalul du ngeen gis rek ci ñaani ñu baax ñi nekk seeni pagguteef may naa leen ngeen di ko jëfandikoo kon nag mënees na koo boole ci pagguteef yi incha allah noo ngi dellu ngi dellu di jégalu bokki taalibe yeeg ñu jotoon a dégg wax ju jëkk joo jële wa sallallahu wa sallama wa baraka ala sayidina muhammadin wa